ñoo ngi ciy woo mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yëpp ndax kii di woote li ko ñor mooy alquraanu karim waaye kii jëf-jëf ji muy sëriñ Fallou Galasloo gaydel buur daal daali gaynde kokki moom it alquraan rek ko ñor ndax dongam kokki la waaye daal nee na moo ngi lay sant sëriñ Maxtaar moo ngi lay gërëm di ñaan nga ñaanal ko ci bis bii ba yéene yi mu am saa su bis bi ñëwee mu jëf ci ba jëf ci lu kawe njortam ci barke alquranul karim nee na sant na la gërëm na la xaritam nga magam nga sëriñam nga lépp nga waaye nee na moo ngi lay sant moo lay ndax bu wootee kokki yaa ciy njëkk ay millions ngay takk ñëw jox ko kon nee na moo ngi lay sant moo ngi gërëm ba noppi nga ñaanal ko ba mu am ca ndam nee na sant na la gërëm na la sëriñ Maxtaar Jenn cours social mm. alquran rek moom moo la ko jaral hmm. ndax man de foogoon naa ak cant la sax wala ak ak ak màggal ndeke alquran rek lañ fiy tare yow nag réew mépp nga woo ci alquran ci ñëpp dañ la wuy si ndax yow alquran rek la ñor yal na yàlla guddal sa fan genn sa maam bu ñëwaan doo doo soppi doxin de sa maam Cheikh Issa sa maam Serigne Touba buñ del si waatoon doo soppi doxin ndax yow nag jàjju ba rek ci nga nekk hmm. mooy jàng ak jàngale ak daara ak bay ak bay li jërëjëf genn ok jërëjëf santal ma ko bu baax incha allah eh, baax jërëjëf santal na ko sëñ Seydou hmm. jëf jëf ju rëy la mm-hmm. ju rëy la bis la boo xam ni mm-hmm. macha allah mm-hmm. lu ci waay def rek defal nga ko sa bopp mel na ni macha allah moom daanaka def na jëf ji ba noppi waaw ndax li moom jëf yi yéene la waaw moom nag ni nga ko waxee rek ñu ba dakkantale ko fam li gën a siiw te mooy kokki lañ tax ñu ñu di ko fa dàkkantale alxuraan la kon bu jëfalee alxuraan moom macha allah kenn du ni bu ko deful woon lañuy la ñuy yéem mm-hmm. waaye bu ko defee moom mm-hmm. du ñu yéem ndax fa mu bokk ak li mu bokk ak liñ bokk mm-hmm. tam tam di ko tam di ko tam di ko suuxat nag waxtu wu ne waaw waxtu wu ne jëlale naa sax yii nii waaye moom bu yemoon ci rek di ñu ndax waxtu wu ne day wax ñaan yi ñu ñaanal sa ñaan yooyu moo ëpp solo lool kon nag danañ ko fa yéene duwalal ko ci bis bi nga xam ni bisu alxuraan la bisub sant sëñ tubaa la bisu bisu feeñal mbégte la waaw ci ndaw ñoo xam ni taxaw nañ seenu taxawaay ba mokkal téeréb suñu borom bi bis boobu nag bis la boo xam ni mm. euh, luñ ci defu rek dañ koo amul moo fas nañ yéene macha allah rabbi lu ci nit indi des na ko defal ndax duñ ci xaar kenn sax eh, waaw duñ ci xaar kenn waaye nag it moom mi moom maan mm-hmm. dañ koo bokk waaw dañ koo bokk mm. dañ koo bokk moo tax nu mu nu mu gën a mën a yëkkati koo gën a mën a gën a mën a taaroo gën a mën a dëppoog jamono ndax li ñuy wootee tax mhm. ndax amuñu lu gën lool te mooy alxuraan amuñu fu gën fu ñu koy wootee te mooy Touba amuñu gën ki ñu koy wootee mooy sañ Touba waaw kon ni ma ko waxee woon rek ñun bu ñuy defal sañ Touba moom dañuy seet la gën la mujj la gën a rafet la gën a seer la gën a kawe ndax moom lim mi defal mënuñu koo fay kon nag santal leen nu ko bu baax a baax waaw santal leen nu ko bu baax Cheikh Mamadou lu te yàlla jëf ju rëy rëy la waaw ah, jëf ju rëy rëy la joo xam ne sant nañ ko ci rëy sant nañ ko ci bu baax a baax ci biirub xol waaw ah, sant nañ ko ndax yéen am na loo xam ne xam ngeen ko ci waaw mm-hmm. ah, moom jàpp gi rek daa doy jàpp biir gi waaw jàpp biir gi waaw ndax waxtu wu ne daf may wax ni ma mm-hmm. yow sama royteef nga sama idol nga ci lu baax waaw diñ ci soññ lool nag mm-hmm. bu koy wax di ko jëfe ba waxtu wu ne léeg-léeg mu woo ma xaaju guddi foo ba bëccëg yor-yor ñëw nguni nguni ak man ah, delluwaat ci ay itam waaw kon nag na na na xam ni mhm. fi mu teg tànkam fi la ah, lu nit ku baax di wut mhm. tam ne ci fu baax mhm. yelloo na mu yegsi ci loxoom te bu yegsee ci moom dana ko defal alxuraan waaw santal leen na ko baax waaw kay bisimilah jërëjëf jërëjëf sëñ bi moom yitteem yëpp alxuraan yàlla defal na ko lépp ah, waaye lu ci waay def na nga xam ni alxuraan nga ko defal te mbégtam Serigne Touba la kon seen usine bi yàlla na yokk seen yéene ci ngeen am fii ci Touba ak Mbàkke yàlla na ngeen ko àggale waaw gën nañoo rafet njortu nag ndax sa waajur doxe moom daan doxe rek ci waa kër Serigne Touba yi ak bokk Serigne Touba yi noonu ngay doxe kon lépp rafet na alaaji Seydou kaddu yi mën naa bañ a gudd ndax jëf day tingoom seere te lii nga jëf yaa ko jëfal sa bopp yaa daan xam ne mu ngi jëflanteeg yow nga yëg ne moom yitteem yëpp alquran lay liggéeyal lii nga yor nga di ko liggéey nga ne naa ci liggéeyal man it alquran jaare ko ci moom te moom lanteneer la du téye diw ci alquran kon nii galaas gi seddee yàlla na si mbir yëpp sedde noonu ci barke alquran sëriñ Maxtaar ñaanal ko usine bi na yokk baayam fa mu tolloon ci liggéey bi na gën a jebbi na gën a jebbi ba sa baay fee mu tëdd xolam dana sedd ci askan wi xolam dana sedd ci mbokk yi